ku dugal aajoom amut poñe ma ndax man duma ko poñe ndax wóolu naa ko man lañ ko cëralee ci pays bi waaw ànduñu ngir lii te ñemewu fi woon ñàkk bañ a ñëw te billaahi duma ko koy yëgal entrepose riwaayam jabaram jiñ ko may sax doomi sang la Pa Ousmane Fati bañ ko muuree Medina teraanga mënut a weesu loolu dañ ne soxnaam si keroog lay indil kii mël ay mël fa ne ko soxla soo am ci àddina bul ñëw Medina sa càmmeñang fa Cheikh Adi mu ngi kon kii ku am wërsëg la ci man man tamit ku am wërsëg laa ndax fépp fu xam-xam nekk ci àddina magam buy dem man la yóbbu te may taal suma oto dawal ba foofu kon lu ma bàyyi desel lu ma am du ma leen ko jox tey moom mu ngi ñëw mais bu may joxe ci gëléem yi mu Mouna laay jox ndax mooy seen xalifa ndax ñoo bokk benn kër kër googu mu nekk fa la bàyyi taxawoon ne maay Cheikhu Tidiane ci bunt bi néeg ba Abdou Lahad fa nekk bàyyi tuddee na ba tuddee murit mooy li waa ji waxoon katolik yi ne leen diine islam moom ah nu mu def ak ñun ñu ne ko seen yónnent bi sax julliti tuddee neen seen yónnent bi doom ñit ñiñ tuddee Insa yëpp Jésus Christ lañ leen tuddee est-ce que ñoom tuddee nañ ñu Muhammad ah. kon sëriñ bi billaahi waxtaan bëgguma ko tey suma waa ji kii na pour nga mun a dem warlul ñu ñu jóg dem añi reer yi billahi añuñu taalibe yi jóge Dakar añuñu ndekkiwuñu sax añuñu reeruñu seen dali sax xamuñ fan la wasalaam tàllal yow wax li ngeen soxla seen xel <coughs> xam-xam rek ay jëriñ alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah saydina muhammadin saydil awalin wal axirin ala alihi wa sahbihi wa man daa bi daawatihi waqtada bi sunnatihi ila yawmi din subhanaka laa ilma lana illa ma alamtana innaka anta alalim hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli shaadi ak mboolem taalibe yeeg mag yeeg rakk yeeg bàjjan yeeg yaay yeeg nijaay yeeg jarbaat yeeg yéen ñëpp maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di wax ne am na ci loo xam ne mën naa ci d'accord mais am na ci loo xam ne duma ci d'accord il foo dire la vérité ndax sama mag sama xalifa ankay damay tudd tur carrément sama mag sama xalifa dañ koy éviter télévision muy wax léeg mu wax lu baax léeg mu wax ay toj-toj waaye nag dafa am loo xam ne du koy sóor ci biir waxam mooy leen xadisu yonent boobu xaddisu naasa bi maa yafhamuuna aturiduna an yukazaba Allah booy wax ak nit ñi da ngay wax ak ñoom li bëgg dégg li ñu mën a dégg ndax da bëgg ñu fenloo yàlla ndax nit boo dépassé xelam rek mu weddi la te pourtant la may wax dëgg boo dépassé rek mu weddi te pourtant la may wax dëgg dafay dugg ci ay détails yoo xam ne am na ci yoo xam ne boo ko seetee dëgg la waaye fa mu koy jaar du foofa du noona te du ko leeral nit ñi lii olof yi lii xale Sénégal wax dafa lay bàyyi ci biir moo tax fu mu waxee rek gars yi jël ay bomb sànni ko ko moom tam mu dëgg di ñàkk leeral googu rek am ci bëri yoo xam ne lii noonu la demee te noonu la amee mais fekk mi ngi sax foofu noonu nag hmm, nit ñi duñ ko dégg duñ ko comprendre hmm, ñu bëri ci la ñuy réer yi muy continuer di réer nit ñi ci loolu Baay Ñas neer maam Boroom Tuubaa wàllu yàlla an kay wàllu yàlla parce que du ko nekkoon wàllu yàlla ko tudd nee na xaaj maa si wàllu yàlla enquête ba nekkatu wàllu yàlla di ko tudd ñoom ñëpp ay wàllu yàlla lañ waaye nañ d'accord ne ni yàlla yónnee yónent yi ku nekk mu jox la lu mu jox sa morom noonu la fi wàllu yàlla yi nekkee ku nekk lu mu jox la lu mu jox sa morom am na sama benn doom boo xam ne du ma tudd turam mais man nag moom duñ déggoo ci wax parce que li mu bugg a léegi-léegi dañ ci détail bu ko firee noona hmm, man loolu ma duma ci d'accord moo tax buy wax su ma ci su ma ci boolee man ma xacc amee amer muy béy ci xaajmaaj muy béy ci bàyyi mu ci béy ci ku ci mën a do affaire yi noonu hmm? lu ma ci dégg lu ma xama damay lem laaj ko ñoo ne ak lu ma xam a xam-xam damay laaj dem laaj ko ñoo ne ñu waxal ma ko werente nañ ci benn wax boo xam ne am na kilifa gu ko wax ñaari baat dong la mu ne baat bi waru ko waxee nii nii la ko war a waxee ba am beneen mbokk taalibe bu ñëw toog waxtaan li tax nag am na ñoo xam ne ba ma leen yónnee message bi Mahsir Cheikh Mahsir ci la bokk ak ñaar ñett kenn rek moo ma ci tontu mooy ku dëkk Mbuur moo ma ci tontu mu ne ma li mu wax ne njuumte la loolu man duma ko tuddee njuumte moom waaju moo xam ma loolu ci li mu wax ne njuumte la ci kooku hmm? mu ma man duma ko tuddee njuumte xëy na làmmiñam moo juum tudd ko mais man duma ko tuddee njuumte man mu ne ma ndax man ak yow mi nga xam ne sa yaay la ak kooku kooku sa doom jooju doon wax ñu ñett ñëpp hmm, waxuma daal la mais pëndam gisuñ ko mënuma pëndam gisuñ ko mënuma yow la wax ba ne ko man waxuma dara dama ne dégg naa baat bi ma sama jom boobu lu ma am xam xam xam damay jël baat bi da ko fa ñukk dem marina seen ñoom ma fa ëpp xam-xam suñ ma waxee dara liñ ma wax affaire bi noonu ma méngale ko li ma wax affaire bi noonu hmm? Hmm? su ko defee ma xam ne sama doom ji moom bàyyi ma bàyyi ko ci ni mu mel nii rek affaire bi noonu hmm? waaye détail woo werante ci dugg waaw euh, maa ngi jéggalu kii ci li may wax si nii xaw ma neex ma ko xaw ma neexu ko mais man danaa ko wax parce que jamono yi ñu tooy parce que ci vengeance ci laa nekk ci xol ah, ok ci vengeance ci laa toll xaw ma dina ko neex waaw mais man li ma bëgg wax wax li ma wax démb la xew démb ci guddi la xew. man lay waxal. ci guddi démb ci guddi la xew li ma lay wax si ni démb ci guddi la xew waaye li ma lay wax xam nga yaa nga wax yow lay wax waaye ma lay la li may wax si dana la bett xam nga mooy démb ci guddi damaa dégg ci xabru bi xabru baay waaw ma jógee ci xabru baay di dinaa tudd tur an kay parce que ci vengeance ci laa nekk damay venger waaw su ma su ma waxee li may wax ba pare da nga xam ndax bale am na foofu njëriñ wala amu fa njëriñ su ma waxee li may wax ba pare. day réeral su ma waxee ba pare da xam ndax réer wàllu wala lu réer wàllu ji. non mu bàyyi Elimane mi ngi taxaw ci buntu xabru bi. am na ñu muy ubbil ji génn dugaat génn dugaat ma ñëw ne doo déglu mu ne ma doo dugg doo fi dugg sa bàyyi laaj ñëwut pour nga dugg xam doo bàyyi mu ñëwut mu teg ci ne mu teg ci ne liñ fi liñ fi defoon daaw duñ ko nanguwaat liñ fi defoon daaw du dara xool bàyyi mënut a fexe ba ñëw mu tax dugg ci xawru bi waaw affaire demee noonu ziar suba ziare jël fa la ma jige wàññeekuwaat cëppeeluwaat bàyyi laa di ñëw waaw xam nga yow waaw taalibe yi waaw dañ laa am ci yoo xam ne baa baaxul bàyyi ji li ngay wax danga koy wax mu leer man ma ma xam li may lay tontu ba léegi wax ji leerut ba léegi wax ji leerut ma am beneen mbokkam bu mu ma booleet wala ambassadeur Italie Italie da nga fa déposé visa déposé sa soxla hmm, da nga dem ba ci digg bi mënoo am visa te duñu la doxee delloo sa xaalis waaw amiciens yi soo xam ne ñu ngi yóbbuwaate waaw affaire demee noonu damay hmm, da jox cinq cent mille wala un million ñu doog laa yóbbu te da nga ko joxe te man te man dañ fi indi fii jegewul loolu te terewul li ngeen bëgg naa ko def wax dañ koy wax de mhm, wax dañ koy wax waaw am sëriñ yoo xam ne boo demee ci ñoom affaire yi leneen laaj loo xam ne boo ko toog li nga joxe sax nga joxe tuuti affaire de am la nga bëgg mës ngeen mës ngeen mës mës dem ci ambassade Amérique wala Italie affaire joxe sa visa ak sa xaalis ba pare ci joxe la ba delloo sa xaalis ku ko mës a dégg nga ma ko wax chaadi maa ngi ñaan ci yoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmad Tidiane ak Cheikh Ibrahima Niass ak maam Hadj Ibrahima sallallahu alayhi wa mboolem fi ñu fi nii ñoom ñépp balaa déwén déedéet loolu dafa dafa sori. déwén dafa sori. waaw oh. balaa yàgg tuuti ku ci nekk ci sa bopp dërëm boo ci def ak dërëm bu mu mën a doon yàlla na ko yàlla fulandi ci lan. ci jàmm ci barke ci mujj gu rafet ak ci wér ak ci njaboot gu barke ak ci bu ku jëkkër ak ci bu ku soxna ak bor yi nga xam ne mu ngi fees dale suñ suñ kaw ak ñi nga xam ne dañoo bugg kër te mu tëleen ak visa yi nga xam ne mën ñoo fexe ba am ko ak ñoom baraam jee ñi nga xam ne ñu ngi ngoro xari ndaam ak ngoro gu yàgg ak ñoom màgg ci bi ñi nga xam ne ñu ngi Ngoro màgg ci màgg ngi bëgg Birame Ndiaye lu yàgg ak ñi nga xam ne ñi ngi jàng ak ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci presse ak ñi nga xam ne seen mbokk yaa ngi nekk ci kaso yi ak ñi nga xam seen mbokk yaa ngi nekk ci hôpital yi soxla yëpp <coughs> jox nañ ko yonent bi ak Cheikh Odiyaan ak Cheikh Ibrahima ak maam Hadj Abdoulaye ci bésab guddi gii balaa weer yàlla na yàlla faj xaaju yëpp ci zaahir ak ci baatin ñaan yàlla yàlla yàggal la fi sa yàgg nag yow taxoo ñuy wax mais ñun ñoo ko bëgg <laughs> waaw waaw yàlla yàggale fi waaye dama yàgg yàggale fi waaye yàlla yàggale fi tamit maanaam ànd ak wér parce que yàlla bu yàggee tamit te wér amul tamit maanaam su yàgg bi moom yàgg na benn njëriñ amul benn njëriñ yàlla yàggale fi te ànd ak wér dafa am benn <laughs> soo benn doom boo xam ne bu lee yàlla may ko dara yàlla na ko yàlla may dara te def ci njaboot maa ngi koy gis waaye du ma ko du ma ko joxoñ damay bañ mu damay bañ mu damay ba am bañ mu am kon xam naa kan la <laughs> fekkee yàlla may ko dara yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla may lu baax ak waaw ak jëkkër ju baax a ah, ko yoon ay ay <laughs> yàlla mën na loolu yàlla na ko def. ma ne nee may jàmm àddina ak balaa yàlla na yàlla musal bépp musiba ak bépp balaa yàlla yàlla musal bépp xay ak balaa xay wa yàlla na yàlla boo lay soppi yàlla gis ak lépp lu sola yàlla dafa leen Cheikh yàlla la yàlla may ijaaba ci ñaan waaw yàlla may ijaaba ci ñaan ñi fi nekk ñépp yàlla leen yàlla musal ci yi may lim nii bu dee am na ku fi nekk nag koo xam ne ci ñooñu la bokk xamal ne man jotewuma dara moom dara waxuma ko damay ñaan sama ñaan goo xam ne affaire yi noonu su ma dee ñoom yàlla may ma jàmm ko jàmm yàlla na yàlla musal ci justice yàlla na yàlla musal ci kaso yàlla na yàlla musal ci xay gendarmerie ak police tooñ ma police tooñ ma gendarme parce que man ak ñoom ñoo nekk ci tere bi te xamante ne ñu ni neen am na ci ñu baax am na ci ñu xam seen liggéey Hmm? am na ñoo xam ne xamuñ sëriñ xamuñ kilifa li may wax ragaluma ko parce que ku fa ku ko demul nettali ko tamit hmm? boo ñëwee ci Facebook bi danga ko ci fekk yi may lim yëpp kenn buggu cee tàbbi kon nag ñun ñëpp yàlla na yàlla musal ci loola te yàlla yàlla mu musal bu ñu def dara loo xam ne dañuy dañuy tàbbiloo ci loola yàlla mën na loolu yàlla na ko def yàlla yàlla may teraanga àddina ak teraanga alaaxira yàlla may teraanga àddina ak teraanga alaaxira jigéen ñi sëy yàlla leen yàlla tàcc si seen sëy yi yàlla leen yàlla jubrik seen jëkkër yi te yàlla leen yàlla musal ci fay te yàlla leen yàlla de bu sax te yàlla bi yàlla barkeel njaboot lépp lu bëgg seen njaboot yi teraanga hmm, yàlla na ko yàlla defal yëpp lu bëgg ci yàlla jubale leen seen jëkkër yàlla na ko yàlla def yàlla mën na loolu ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke alquran ci barke li ko waxal ci moom ci barke li tax ñu wax ko su waasal ko ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla dafa bind jaam yu mel noonu waaw kaf yooyu muy kaf ak nettali yi muy nettali ndax damay doon modérateur bu leen ko xool ci moom lu leer laa lay wax bu demoon ba ca tànti Medina ñu jox lii lay wax te wax na leen ko waaw wax na leen ne ci xabru baayam la jóge dugal na fa affaire xaalis mooy di ngeen am xaalis dugal na kees ya dollar ya di ngeen ko am ñaan na ba ñaan ndax bàyyi dafay ne booy ñaan na nga ñaan ba ñaan xorom si sa jabar di xoromee ñaanal na ki amul jëkkër kon anta ku ñëw bul dàq ah man ma man anta laa waxal de yaa ne ko ndax moom ngay waxal ndax sa njaboot la sa doom la ñaanal na leen kaso bu ngeen ci dugg ñaanal na leen ay police ngeen am ay problème ñu yóbbu leen fa indi na ko ci barke yónnent bii nga xam ne moo waral guddi gi te baayam di waaris ci yónnent yàlla muhammad indi na ci barke biñ koy indee indi na barke alxuraan ak li tax ñu indi alxuraan indi indi na ci barke ñu baax ñi nee na ci at la koy ñaan waaye mu ne at day sori sax ne ci weer waaye weer day sori mais bu ñu amee yaqin ak ngëm googu di leen ko gis ci semaine bi kon lu fi waay ñaan yàlla na ko yàlla nag li waral guddi gi yàlla na ko yàlla nangu ñaan ji yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér sëriñ bi li muy ñaan yàlla na jokk ci baayam ndax doom muy mbóot ak baay ja waaw tey gis ngeen loo xam ne mot leen ko gis te du kaf kafut ndax bi ñu waxee dafa delloo yàlla cëram pour bañ ko yëg moo tax mu dugg ci détail yi waaye waxoon nañu ci biir wax ne dina ko def lu leer laa leen wax te maa ngi fi yéen fi ñaan ja baayam doon ñaan la ñaan tënk ko ci jigéen ju dul sëy bi muy wax xaw ma roqi jaay xaw ma nang mooy jigéen ji nga xam ne am na ku koy doxaan di ko dig takk mu ne yàlla na ñëw moom la ñaanal kale bu fekkee ne am na ay góor yu ñëw yàlla na ñëw te bu ñëwee yàlla na baax góor gi nga xam ne mu ngi léewaatoo tamit mu ne yàlla na ko yàlla saxal te loolu yëpp day bañ pour ñu dem ci nëggte ndax ànd ak jigéen ak góor tànka takkoo ko waroo ko jox loxo sax maanaam daal en gros ci yooyu la détaillé xamal na ma tamit ci mbooloo mi muskila yoo xam ne jot na koo am mu bañ ma koy déggee feneen mais waxut ak yéen ndax xam na ne dinaa ko dégg kon bu ma leen ne dañ ma booleeg moom gëm naa ko ndax ci baatin la doon wax man mais dinaa ko xamal ne moo nekk ci dëgg ndax ka fa nekk toog ñoom ñoo ko dénk seen xabru bàyyi nga laaj ma ndax bàyyi sa papa la ma ne sa bàyyi sa bàyyi la ñaari yoon moo la jur ci zaahir ci baatin li nga xam yëpp moo la ko xamal te mbóot moomu yàlla na roogaat ci yow loolu rek la bëggoon a wax bi waa ji di wax xam na li muy wax xam na ne dëgg la mu ne ko nit dina wax wax joo xam ne dina am ñu fa nekk te duñ ko dégg te buñ demee mun neen lettali leneen boobu mu ngi wax incha allah bu ma ko xamu doon ma du ma wax ji ni bu ma xaaroon ba mu dem ma wax ko du doon dëgg kon sant nañ yàlla ci anam bu set waaw dafa am benn suma doom sama jabar bi ñuy maye boo xam ne maye nañ bañ sëy sama jabar nag su ma koy wax hmm? suñu sët laa sa sët waaw dégg nga muy génn ñu sol mbubu mariage yooyu noonu mm-hmm. dégg sama doomu mag na ko li nga lii li nga sol nii baaxul utal foolaan affaire demee noonu dégg ñu ci expliqué di wax ba ñu ñëpp toog quoi waaw ñoo ñëw ñaan si affaire demee noonu jëkkëriñ fi mu tàggoo bi ñu ko fa noonu bi ma joxee kàddu ma wax wax ju gàtt sama doom ji am na lu ma ko loo wax sànq hmm? muy wax xale bu jigéen mi naa ko jël fulaa nga teg ko si kaw bi ne ko teg ko sa kaw bi ma ne ko sëriñ bi li nga wax loolu mooy li baax loolu mooy li jub mooy sharia waaye dama laa bëgg a xamal ne dafa am loo xam ne fii si Sénégal pour ma valable fii def sa compliqué li nga wax noonu la amee te noonu la war a demee dafa war a muuru loolu kenn weddiwu ko te loolu mooy sharia waaye pour nga jëmmal ko fii Sénégal c'est impossible bala ngaa xam nag c'est impossible dañoo wax ne tabaski xar la ak nag ak béy ak nangam ak na ak nangam waa bés boo fi jëndee béy coow topp la te sharia koo wax loolu laa la bëgg <laughs> xale bu jigéen bii wala xale bu góor bii bëgg bëggante kii am ci xale bu góor bi am na ci loo xam ne mën na koo bëgg mën na koo bëgg ci xale bu jigéen bi hmm? Hmm? mais xale bu jigéen bi moom ci jëmba man man affaire yooyu am na yoo xam ne man doxuma ci a ah, tey suba gis tey bëgg tey takk tey mu sëy te affaire demee noonu te man xamaguma xamaguma waa xamaguma la xamaguma benn genre yooyu man doxuma ci allah ñaan ji yëpp conclure na ko bu di jëkkër na ngeen ko tànn na ko xool ndax wax ak wàlliw dafa am neneen lu muy doxe nit du ñëw tey xamoo kuy mbokkam xamoo fu mu jógee nga may ko jabar te bu ngeen di def mariage bàyyi leen seen teg yooyu tey mu tey ah, kaalaw te xamante yooyu ah mooy indi yaa àngi mu ne yaa mooy indi àngi suuros waaw kon yàlla nañu yàlla dimbale sëriñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant ci pédagogie bi nga am ci ta façon de faire ci ni ngay waxee ba nga xam ne doo tooñ kenn doo mënaase kenn yàlla na la yàlla taxaw yàlla na yàlla yàlla xam nga xale bi jigéen bi wax na maanaam ngi nekk nekk boo xam ne mën na ñetti at wala fukki at ak waa affaire demee hmm? fukki at. déedéet maanaam li ma waaw at wala juróomi at affaire noonu. Hmm? lenn rek moo ko tee dugg sa sëy ba su ma duggee ci sëy am liberté xam nga xam nga kooku bëgg naa est-ce ah. <laughs> te foo ko omo waaw sàmm loola leen seen bopp ndax lu yàgg seytaane mun na ca am te li muy wax mu ne foo ko mu wuy la waaw ndax bu la xamee daf lay yàpp dootu la takk keneen lay takki yàlla nañu yàlla dimbale yàlla jàppale ñu ngeen dellu ci dali pour reer ngeen baal ma àq nag ndax añu gars yi mu jox la wirdu boole la man jox ko jox ko wirdu tijaan wi nag dafa am ay condition yu ci ne condition yi mooy ko jàpp doo ba ngay dee yi mooy lan ku jàpp boo ko ba ngay dee benn wali bu du xam bu dund moo xam bu dee mooy ziyaare comme ni ngay ziyaare sa sëñ yi ndax saas baraam nee na waa ji nee lu tax taalibe tijaan ni ñuy wax ñu wax ne taalibe tijaan dugg aljant duñ ko xisaab duñ koy xam saabam waaye yow gone yow waane wu yow bu ñëpp duggoon aljana ba iblis dugg aljana yow loolu loolu lu mu lay ah, da ngay toog di taxaw foofu di philosophie ba mu fër bi muti loolu lu ko def Mm-hmm. doo ziyaar wala bu tijjaan xam bu dund moo xam bu dee baaxee say ñaar waajur bu wa sa sëriñ tamit comme la ko bàyyi waxee waajutu maanaam mu tamit nga baaxee ko nga wëdd subaa ngoon soo mënta dem wasifa boo julee takkusaan nga def ko boo julee suba nga def ko boo yëngu ci nga def ko astafurlah téeméeri yoon laay laay téeméeri yoon salaatul annabi téeméeri yoon yàlla mën na la ko tamit hmm, soo ko mënee dem wasifa hmm, nga dem wasifa Chamat Jaan wax nañ ne garanti na képp ko jël tariqam bi garanti na la xam yàlla te xam yàlla fii ci àdduna mooy tàbb aljana te deewul kon nag jox nañu lépp ci ndigal yéen ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ndigale Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ni ndigale Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dafa am benn at man ak monsieur ñu dem fële tukki Nigéria dem ba Burkina Faso ma xadam bi ne dafa am ko bëgg ci wér ma ne ko ñu mu toog mu toogee ma xadam bi yaa ma xadam ah, ma ko ah, lu xew mbaa jàmm la waaw moom jox ko kay mu jox ndigal bu ma ko ma ne doo ko jox rek ma ne ko noonu na ko jox wax ji bëgg bëri ma ne ko eh monsieur xam nga wax ji lu koy ale ko gàttal Hmm? aw ma ndigal ci joxe wérdu loolu mooy wax ji gàtt loolu lay nekk ci wax jooju naxante naa daal ba mu jox ma bokk mu xaddam bi jox ko wérdu ñu dem Nigeria day yegg sëriñ Aliou Mbaye mu ci ma ne ko ci zaahir lu ci di wax dëgg ci baatin sëñ li mu wax yow gi sëñ Aliou jël ma li ma bëgg a xam mooy sadaka bi sama baay moo ko moom wala sama ndey ko Medina Baay bi sax man su ma ci solee sama daal sax dugg fa gaare sama oto kii xam na ne man sama jëmb bu óor bu ma gaare du ma gaaree nu ma neexee moom ko kii xam na ne waaw déedéet ndax ndax lu tax du ma gaare du ma neexee du luwaay laay soo waaye déedéet damay garé nu ma neexee affaire yi noonu Samba Ndiaye wala Khady Ndiaye am lum lum ci wax wala am lu ma wax keneen dégg ko attaqué ko du problème loi de du loi lay respecté de man maay garé nu ma neexee Samba Ndiaye wala Khady Ndiaye sa gaare kii gaarem bu bon bii wala du ci wax leen loxo waxu ko su ko defee nag keneen déggu ko attaqué ko ko bëggee nin doo islam da jël lépp doo ne lii laa ci def doo ko jëla am moitié da ngay jël lépp munoo ko nga bàyyi jox nañu ni ko ndigal yante Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndigal Cheikh Ahmad Tijaan ndigal Cheikh Ibrahima hmm? di beesal nit ñi nga xam ne ñu fi nekk yëpp di leen beesal seen ñaan yàlla yàlla seen kursi yàlla dafa leen ci tawfiq dafa leen ci barke li ngeen ci yaakaar di ko ñaan yàlla yàlla dimbale leen ngeen gis ko ak seen bët te lépp nekk jàmm yàlla mën na loolu yàlla ko def taalal sa loxo yi ñu ñaanal macha allah. gis ngeen bu saayir bi ko ma ñaan bu baatin bi bi mu waree war war warloo ñu <laughs> ma man naa noppi sax <laughs>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 محبوب हर कोई